bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlaana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbi sawir ilwaani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi yëkkati kàddu ndigal ñu jógee suñu kilifa gii di sëriñ mu Moustapha Mbacké moom sëñ Abdoul Akram moom sëriñ Afia muy kàddu yu nuyoo ak yooyu siyaare ak yooyu sant ak yooyu di leen jaajëfal jaarale ko ci sëriñ Modou Mbacké si mi nga xam ne moo jiite <coughs> karawaan bi ci ndigalal sëriñ Mountakha ak ñim jox. karawaan bii ñu war koy taxawe ci mbirum màggalu Tuuba gii ñu di leen siyaare bu baax ci weer wu tedd bii di weeru safar di weer woo xam ne weer yi gën a màgg ci Serigne Touba da ko cee boole ndax xasiday safar bari na lool Serigne Touba way ko ni xasiday rabihul awal amee muy gàmmo <coughs> xasiday ramalaan am ni mu mel ne weer yëpp sëriñ bi mooleen moom soxla ne waaye yetti weer yooyu moom ñoo ci gën a bari ay xasida safar rabihul awal saaru ramadan kon ñu teew ci pàkk bu tedd bii di Afia fekk fi sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké moom sëriñ Abdoul Akram moom sëriñ Afia nuy ñaan suñu boroom bàyyil nu ko fi lu yàgg lool fan wi gudd lool te mu ànd ku wér suñ borom musal ko ci mépp ndog yàlla bu ko dara dogale ak ku ko ko yéene ak kum ko yéene moom nag yéene na ko ñëpp moom yéene ko ñëpp muy weer wu tedd nag woo xam ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul boo ko seetloo ñaar fukki at ak juróom yor na ko nattu bu tedd bu bii nga xam ne moo tax muy sant ndax soo delloo ci mbindum Serigne Touba da nga fekk mu naan raddaliyal muhiidu xaama xal sasi maa la ani xablu ama jëy sasi raddaliyal muhiidu xaama xal sasi maala la ani xablu ama jëy sasi sëriñ bi ne la ko taxoon a jóg ca jëy sas mu di ko wut di ko wër di ko seet xal sas la ko ko sun borom yot mooy juróom-ñetti ati njëriñ da ngay jël siin su jël siin su wow jël laam jël xaalonk muy junneeg ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett kon mooy juróom-ñetti ati njaarim ci la sëriñ bi jot mbooleem la ko taxoon a jóg lépp mu bindal ko boppam raddali yàlla muhiidu ama al sësi maa laa la ani xablu ama jëy sësi soo tee seetee nag diggante boobu dana mat ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne at mu ne nattu bi su ñëwee dañu koy dugle mboolem nattu ya weesu woon yëpp dañ koy boole ak nattu boobu tegaat ko ko mu gën a diis ba muy ñaar fukki at ak juróom mu ne ko nag nattu bi jeex na kon santa ci des Sëriñ Tuubaa bindaat ne rumtu sukooralaahi sil jalaali min tel sa sin bi sigri wal alaali kon rumtu sukooralaahi sil jalaali maa ngi sàkku na kon sant yàlla sun borom mi aji màgg ja min tel sa kon mooy ca déwén sa di tal sas di juróom-yenti ati njaareem ci la màggal gi tàmbali bi sigri wal alaali bi sigri ci jàng alquran bi sigri ci sikar bi sigri ci jàng xasida bi sigri ci salaatu ala nabi wal alaali ak lépp lu dagan ci lekk ak naan loolu rek mooy màggal du leneen loolu mooy màggal du leneen rumdu sukoorallaahi sil jalaali min dal bi sigri wal alaali kon muy bés bu tedd waaye mu am nag tuuti lu may wax ak ci jëmm ji fi nekk di Serigne Moustapha Mbacké moom sëñ Abdou Akam ak way juram wa te daal di taxaw foofu ndax man ku tuuti laa ci wax fii ci seen biir ku ci tuuti laa ngir ñàkk gi xam-xam ak ñàkk gi daraja tax na toog fi seen biir di fi wax ndigal rek a ko mën a waral waaye su doon to ndigal duñ ko xalaat ma ne nag axonsu mi mina saytaan rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ Moustapha Mbakke sëtub sayxu aafiya na buur yàlla guddal fan bi lool may la aafiya sëriñ Moustapha Mbakke sëtub sayxu aafiya na buur yàlla guddal fan wi lool may la aafiya da boole jàmm ngor te boole ci ay njariñ sa teggin yi moo jaaxal ñi fiy woote ak cëriñ da boole jàmm ngor te boole ci ay njariñ sa teggin yi moo jaaxal ñi fi woote ak cëriñ sa yar bii nga yor booleeg sa xam-xam bi moo nu doy sa la biir gi ak girmaandi ji moo nu dolli tey da jël jikkoy Cheikh Abdou Lakram mu tedd ma te moom turam te moom turam moo doon ay jikkoom yàlla xam na ko te baayam ba moo doon sayxu aafi mu sell ma te mooy Ahmadul Muxtaari tànnam nga umpu melam waa waral Cheikh Bamba takkal ko ab melam waa waral Cheikh Bamba tànnal ko ab cëram melam waa waral Cheikh Bamba tànnal ko ab cëram mu doon ilimaanam bii cërey mu doon ilimaanam bii cërey cër bu am ngërëm bii cërey cër bu am ngërëm ku Cheikh Bamba seet bam doy ko ci julli doy gu wér xamoo kem sëriñ afey boroom gëm te gëm ga wér sëñ Tuubaa mi julli jaral ñu yóbbu ko ba ci biir géej mu sànni deram sànni boppam ngir julli ku mu àttan a jël teg ci kanam fa mu daan taxaw mu taxaw loola fa kooku ab cëram kenn mënu koo am. kon ku Seex Bamba seet ba doy ko ci julli doy gu wér amoo kem sëriñ Afey boroom gëm te gëm ga wér ba muy jiite gànnaar weeru kooram wa naar yi jóg sërif yaa defoon maamoom ya bii sangam mës la ñu bari dañuy defee ne Serigne Touba ci njaarim gii la jiitale si ñaafe jiitu na loolu gànnaar la ko Serigne Touba jëkk jiitale weeru koor di waaj a teru mu woo ko waxataan ak moom ne ko yaay jiite naa fi alxuraan naar yi ne loolu mënta am nun sërif yi doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nun borom njañ yii di wali di sërif borom der bu ñuul taxaw ci sun kanam di jàng alxuraan kooku mënta nekk waaye ba waxtu wa jotee ba Serigne Touba jox ko ndigal Serigne a fi ñëw taxaw ca kanam borom njañ ya sërif ya wëllu ya seen maam alxuraan wàcc ci moom di yont yàlla rasulullahi salaa salaam Serigne a fi ba mu yëkkatee alxuraan daa mujj naar yi mënatu ñëw di julli dañuy xus seen kawar di yooxu ndax mësuñoo dégg <coughs> maxaarij bu mel noonu ak làmmiñ wu sedd noonu sedd noonu rafet noonu mësuñu koo dégg waaye dañoo xamul ne fekk na Serigne bi waajal na ko bu yàgg. Maam Mor Jaara magi mag mi doon waatukaay bi sëñ Tuubaa jël na sëñ Afe jox ko Maam Mor Jaara Maam Mor Jaara yor na ko téeméeri guddi guddi gu mu déglu sëñ Afe ba muy guddi muy tari alxuraan téeméeri guddi guddi gu ne sëñ Afe ko alxuraan ci kanam Maam Mor Jaara magi mag kooku amul morom. moo tax ma ne ko ba muy yiita gànnaar weeru kooram war naar ya jóg sëriif yaa defoon maam moom ya bii sang mës la gag tareem baa ko wér baatam ba neex naar ya déglu ko maxaarij ba jaaxal leen xaróolam ba raw na ko te nax wam ba ak mantix ba jaaxal na gaa yi biir te jaaxal na ñooñ kow ñi sëriñ Afe mooy ku wóor